سيدنا محمد القائل أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu tedd di ci jiital ki yàlla jiital tey jii ci suñu kanam muy sunu sang sunu mag ñun seydina muhammadul muxtaar ibnu seydina ma njoon laay noo koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla mu dolli ko ndimbal dolli ko jàmm te boole ko ak moom nu ngi ciy teg rakkam sunu mag seydil imam Mouhamadul Bachir moom itam di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér jiti ceeg seydi Mouhamadul Amin di ko ñaanal moom itam yàlla dolli ko jàmm dolli ko wér te boolinu di ci teg seydi maam libaas ibn seydina Babacar Laay di ko ñaanal moom itam yàlla dolli ko jàmm dolli ko wér di ci teg Seydi Maam Alassane Laye sunu rakk moom itim di ko ñaanal jàmm ak wér ak afiya di nuyu sunu doom yépp te bu nu ci tuddee sunu taaw yi nga xam ne ñu ngi nii toog ci suñu wet ñu yóbbuwaale ñu ci des ñépp muy Seydina Isa ibn Seydi Maam Alassane Laye Seydina Isa ibn Seydina Abdullah Seydi Limaamu Thiaw Laye mu suñu mag maam Ibrahima Séni Seydina Ababacar Laye mu Seydina Isa ibn Seydina Mandione nuyu jarbaat yi yépp nuyu ahlu bayti seydina limaamullaahi gépp ziyaar leen ziyaar yi gën a tedd nuyu jullit yépp ci réew mi ak ci àddina bi yépp nuyoob jullit ci mbokki jullitam ziyaar ci bés bu tedd bile di benn fanu Shaaban waaye nag beral jagleel nuyoo ci jullit yi ñi nga xam ne ñooy soppey seydina limaamullah man kaanu wa xaysu kaanu nu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ci sunu bés bi noog yéen muy bés bi nga xam ni ci la seydina max di taxawoon ci barab bu sell bi yëkkati kàddu gu rëy gu màgg googa nga xam ne moo diw bakkam fu ko waay déggati te bokk ci réew mi faw sa xel dem ci seydina ali muhammad alayhi salaatu wasalaam ajibu daayallaahi mu ngi ci alquraanul karim waaye ku ko dégg ci senegaal gii faw sam xel dem ci seydina ali muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy aw bakkam moo ko moom te ci bés bi la ko yëkkati woon ci ndigalal yàlla kon nag nu ngi ci ziar ay soppeem yépp fu ñu mën a nekk ak ku ñu mën a nekk di nuyu ñi nga xam ne yéen yéen ay taalibay Seydina Limaamu Laay yu tedd yi di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay bi nga xam ne Seydina Limaamu Laay moom la leen jox nga xam ne lépp loo xam ne nu ñuy melale koo sopp koo yëg koo fonk koo boole ci sa bopp Seydina Limaamu melal na leen ko yéen taalibey Seydina Limaamu te bu ngeen delloo ci xutba yi di ngeen fa fekk ahibaa yi ahillaa yi asxaabi talaamisi loolu yépp nag di ay melokaan yu tëdd yoo xam ne la ko boole dajale ko mooy li dox seen digganteeg seen sang sunu sang bu tëdd bi limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam taalibay seydinaa limaamu maa ngi leen di ziyaar ci seen bés bi di leen ndokkeel ci seen bés bi di leen massawu coono bu baax a baax ci seen bés bi te di leen gërëm di leen sant di leen wax jërëjëf comme ni ma ko fi waxee rek ci ay appel yi weesu fonk ngeen seen bés ci at mu ne mais ren jii da ci rawati ren jii dëgg-dëgg lépp loo xam ne day wane ne yéen fonk ngeen seen bés bi def ngeen ko jëfe ngeen ko taxawe ngeen yal nanu leen yàlla fayal bi jaahi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam nu ngi leen di nuyu kon di jaarale ci yéen nuyoo jëmale ko ca saaba yu tedd ya ca bitim réew yépp taalibay Seydina Limaamu yi ci bitim réew yépp maa ngi jaarale sunu nuyoo ci ñoom ci yéen fu ñu mën a nekk ci bitim réew amaana ba am na ci ñoom ñoo xam ne ñu nga toog di suivre xaar bi yàgg na yéen ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di jéggalu ci loolu jéggal leen nu ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen ñaanal di sàkku seeni ñaan nu ngi nuyu mbokki réew mi yépp réewum senegaal jullit yéeg ñi ne ci yeneen diine te nu bokk ak ñoom mbokk gi bokk ak ñoom réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal di ñaanal réew mi yàlla dolli fi jàmm réewum senegaal yàlla na fi yàlla dolli jàmm kon nag bismillahi rahmaani rahim nu fas yéene jukki waatal leen comme ni nu leen ko daan defale ca at jëli weesu ba tey yàlla na gën a yàgg nu bokk ko di fekk ci jàmm te yàlla barkeel ko te sellal ca appelu 2019 la ñu mujjoon taxaw ci jukki yi ci téere bi ñu tuddee irshadu ibadillahi ila sawaabi min xutabi seydina imaamillahi alayhi ñu yemoon sa ca nemmeeku ya azurukum azurukum yooya ñu yemoon ca ca julli ak ngënee li julli yàlla dogal nag ci diggante bi ay ndog-ndog am fi mu doon li wàccoon ci àddina bi ci coobaree borom bi ba 2020 nu fomm ko 2021 ñu def ko ci anam gu ñu yemale kon nag tey jii nu tàmbali waat ca fa ñu yemoon jukki waatal leen ci xutab yooyu nga xam ne moom la sang bu tedd bi daan waraate di jàngale di digle di tere waaye nag ci mbaaxam ngir yéwénenu ñun ñi ñëw ci ginnaawam mu bindalu ko bindaloo ko nag ñu jàng ñu bind ko ci arab yu wér dajale ko lépp ka nga xam ne nag moo ko dajale ba tey jii moom itim nu koy ñaanal yàlla fayal nu ko muy xalifab Seydina Limaamu ba seydinaa Isaa ibnu Seydina ma ñëw bari na ci xam-xam tey lu ñuy jariñoo ci xilaaf bàyyi Baay Seydi Thiaw la la lanu ko yàlla dimbale bokk na ca xutab yi moo jox ndigal al imam muhammadu saxiir radiallahu anhu wa arda wa jazahu llahu anna wa anil islami xayra jaza mu dajale ko def ko ci téere bii ñuy wax irshaadu ibadillah ila sawaabi min xutabi seydina imaamillah kon bàyyi siid caw yàlla na ko yàlla fayal ngën ji pay tey nag ñu ngi leen di jukkil ci azurukum yi maa ngi leen di seet wala maa ngi leen di nemmeeku ñu jukkil leen ci rek benn bind ngir rekk tënk te mooy fa muy wax naan ay aydan azurukum fi alsinatikum fi nutqiha wa samtiha wa fi ayunikum fi nazariha wa gaddiha mu ne ba tey itam maa ngi leen di nemmeeku ci seeni làmmiñ ca bu àddoo di wax ak bu noppee di leen nemmeeku tim te di leen seet ci seeni bët bu xippee di xool na jàkk ak bu wàccee xool ba mu doon ñaari cër yu màgg yu tedd yu am solo doon xéewal ci xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko nit cërëb bët ak cërëb làmmeñ noon la leen boole moom sang bu tedd bi ci xutbam bii alsinatikum wa ayunikum te ñoom ñaar ñooñoot ñaari cër màgg yu am solo yooyu itam noonu la leen alquran boole. lam yaj'al lakum aynaanan aynayni wa lisaanan wa shafaytayni yàlla moom moo doon fàttali nit len na ci lim ko baaxe nekk xanaadu yàlla moo leen baaxe defal leen ñaari bët ngeen di ci gis li ci seen kanamak ak li leen wër yépp li ci kaw ak suuf te muy cër bu ndaw waaye nag xoolal li ci xaj lépp fi mu ne nii kenn ku ci nekk macha allah ci sa ñaari bët wala sax doonte benn bët la yaa ngi lépp mu ngi ci biir loolu mu doon xéwal gu màgg gu tedd beneen ba di xéewal ak làmmiñ nga xam ne moom itam ci la nit di waxe li mu bëgg ci lay waxe soxlaam di ci jaamu yàlla di ci tudd yàlla mu doon ñaari cër yoo xam ne noonu leen alquran boolee tudd noonu la leen sang bu teddee imaamullahi alayhi salaatu salaam boolee moom itim ci nemmeekoom yi mu doon nag loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ñaari cër yooyu baaxe gi la ko yàlla baaxe te am na ñu mu ko xañ te nag xéewal ak màggaayu cër yooyu ka ko yàlla baaxe woon mu koy bànneexoo di ko jariñoo ba xëy ñàkk ka kookaa kay xam te loolu am na ku yàlla baaxe woon muy gis ba xëy yàlla nattoo ko gisatul ku yàlla baaxe woon muy wax ba xëy yàlla nattu ko mënatu wax ma wax ne kooku mooy xam dëgg-dëgg solos cër yooyu nuy ñaanal yàlla ñi yàlla nattoo loolu yàlla defal leen te defal leen dimbal te yàlla musal nu ci loolu yonent nag dafa am lu ko war ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni ci ab yonent itim dafa am lu leen war ginnaaw ba ñu ko gëmee ba nangul ko dafa am lu leen war yonent li ko war te loolu moom mooy mission loolu mooy fonction mooy rôlam bi nga xam ne si lay nekk feek mu ngi ci kaw suuf mooy muy jotal di leeral la nga xam ne moom la ko yàlla yónni ci mbindeef yi wa ma ala rasul illa al balaagul mubin moom sang bi imaamullahi alayhi salaam waxal na ko boppam biral na loolu ci xotbam mu ne bu ngeen toppee lii leen di digal te mooy ndigalal yàlla dina leen jëriñ ëllëg ci àllaaxira bu ngeen ko toppul nag du ngeen lor ku seen bopp te du ngeen wàññi yàlla dara mu ne te man nag aji digle laa te yonente li ko war mooy jotal te man jotal naa wa ana amir wa ma ala rasul illa al balagh wa ana ballagt moom limaamul mahdi alayhi salaam moo waxal loolu boppam ci xutbam kon ma wax ne li war ab yonent mooy jotal moom day wax na ne jotal na te dëgg la jotal te lii tey ñuy jël di ko jariñoo ci jamono jii nii te boobaak léegi téeméeri at ak ñeent fukk defe naa dox ci kon wallaay jotal yàlla na nu ko yàlla fayal ñi nga xam ne ñoom lañ yónni ci ñoom ab yonente itim ñoom itim dañu dafa am lu leen war ñi nu yónni bi yonente ci ñoom te ñu gëm ko nangul ko lu war ci ñoom mooy topp ko te loolu yàlla mi yónnee moo ko waxal boppam wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah waaw yàlla moo ne yónniwu ma yonent lu dur ngir ñu topp ka ci ndigalal yàlla kon nag ab yonent li war ñi nu ko yónni ca ñoom gannaaw ba nu ko gëmee dañu war a dëggal seen ngëm dëggal ga mooy ñu topp ko ci lépp lu leen di digal ñu jëfe ko na mu leen ko digale te sell sellal lépp lu mu leen tere ñu bàyyi kon ab yonent yónniwuñu ko pour ñuy wane ak xéer si moom xéeru kese-kese yónniw ñu ko pour ñuy xaabaabal ci moom gu àndul ak topp ko ak jëfe ndigalam yónniw ñu ko pour ñuy xéer ciw turam kese-kese yónniw ñu ko pour ñuy di ko joxoñ fu ñu tollu nakaan yaay yaay rasulullaay yaay rasulullaay déedéet wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah yàllaa ko waxal boppam mu ne loolu yépp taxul ma yónni yonent bi yonent bu mu doon yàlla nee na da ko yónni ngir nu topp ko ci ndigalal yàlla toppab yonent ndigalal yàlla te loolu yonent rekk moo ko am te saxaaba yi max di yooyu ñu sori woon ak fanatisme lañ lu tolloog ni ñu xëre woon ci gëm ko ak bëgg ko noonu lañu ñu ràññee woon noonu la xàmmee woon noonu lañu ñu tim xame woon li leen war te mooy topp ak aalu kese kese kese du dimbali ki gëm ci yonent bi nga xam ne moom lañu ko booleel ndax ku gëm ab yonent danga war a lisit danga war a ànd ak sa sago nga dégg bu baax li mu lay digal xam ko man kaa jëfe ni mu la ko digal pour bañ a juyoo ak moom moo tax saxaabay yi max mahdi alayhi salaatu salaam ya ñoom loolu mooy dal gi nekkoon ci ñoom ku leen xam-xam ne ñu gëm lool ñu xër lool lañ waaye nag xër gu tegu ci yoon xër ci topp ko ak jëfe ay ndigalam du xër ak aalu ak xël ak wax rekk ak di ko woyantu ak foo toll nakaan yaay rasulullaay yaay rasulullaay yaay rasul ñoom rasulullaay ak Seydina Limaamul Mahdi seen comportement moo ko doon wax seen taxawaay moo ko doon wax moo tax mu doon oyof ca ñañu doon séqal ndax ñooñu ñoo leen doon nemmeeku di leen seetlu ba yàgg ñu naan waa kii lu mu doon kii lu tax mu wuteeg nit ba xam ne kii taalu bépp limaamul mahdi la alayhi salaatu wasalaam moo tax kon yonenta jotal moo ko war ki ñu yónni ci moom ab yonenta topp yonenta ba moo ko war te topp ga ndigalal yàlla la nu bàyyi xel ci loolu bu ko defee mbokki jullit yi yàlla suñu borom wax na ne alam na najal lahu aynayni wa lisaanan wa nii nit xanaa du yàlla moo ko may ñaari bët yu muy xoole may ko làmmeñ mu wodde làmmiñ wa ñaari tuñ yoo xam ne mooy tax wax jamuy wax doon wax ju set wax ju leer ñu mën koo comprendre loolu di xéewal ak yàlla bu rëy rëy rëy Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam nag bi muy wax naan azurukum fi alsinatikum fii nutqiha wa foofu la yam maa ngi leen di seet maa ngi leen di nemmeeku ci seeni làmmiñ ci bu ngeen àddoo di wax ak bu ngeen noppee tegu ca benn digal neewul noppi leen neewul wax leen parce que noppi wax nekkul lu ñu digle gépp ak digle noppeet nekkul lu ñu digle gépp ak digle waaye nag wax lu baax moo gën noppi bañ a wax lu baax noppi bañ a wax lu bon moo gën wax lu bon ba tax na kon la nga xam ne moo ñuy orienté foofu mooy sunna te ñëw na ci sunna man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bés peññat gëm bés peñca te loolu dëggu ci yow na ngay wax lu baax mbaa nga noppi kon wax ngir yàlla walla noppi ngir yàlla moo war jullit bi wax ngir yàlla nag bu amee rek kon wax ju baax la noppi ngir yàlla nag bu amee rek mooy moytu wax sofaanab wax ju baax te nag yàlla dina nattoo lenn ci ay jaamam ñàkk a mën a wax am nañ làmmañ mën nañoo wax mais du ñu mënee wax am nañu yàlla nattoo maneewuñu wax mu doon nattu bu metti waaye am na natt bu ko gën a metti mooy ñàkk a mën a noppi am na ñu yàlla nattoo ñàkk a mën a noppi waaye taalubay Seydina Limaamu yee day magi magi taalibe ya ñi ñu jot a dund ak ñoom nemmeeku woon nañ ci ñoom ña ca mën a mane wax ak ña ca manewul wax mënoon nañ noppi yàlla mayoon na leen ñu am man-manuk noppi te loolu lu am solo la loolu bokk na ci seeni màndarga waaye nag loolu kañ ko màndargaale te ñun ñépp ñu xam ka mooy sunu sang bu tedd ba Seydina Mandione Laye ibnu Seydina Limaamu Laay yàlla na nu ko yàlla fayal ku mënoon noppi la ñun ñëpp dégg nañ ak noppeem et pourtant ku mën a wax la ndax dégg ngeen wax yu am solo yi ñuy wax toujours ne moom moo ko wax boo déggee comme lañ naan moo doon wax ne gérées gérées gi nekk ci cuuj gu ko ëpp fuuf mu ngi ciw ñay aw ñay ne nërëm ab cuuc di cëpp cëppi sëy naa ma ñoonu wax ku noppi ki kon yàlla baaxe woon naka mën a noppi mais mën a wax pourtant Baye Seydi caw meloon na noonu dégg ngeen moom it xekam yi ñu koy waxal yépp te ku mënoon a noppi la ma wax ne nag magi ahlulaay yi ñoom ñépp yàlla baaxe woon na leen man-man googu mën a noppi te itim bu ñu nekkee ci ab jotaay boo xam ne la ñu fay wax lu dul naka sa noonu la dinañ ne teg walla dinañ jéem changer sise bi dinañ jéem fexe ba wëlbati sujet booba nga xam ne wax ju dul naka sa noonu loolu tamit yàlla mayoon na leen walla ñu jékki-jékki ne ñokket daldi joxe benn ngànt ne ah man ne maa ngi dellu kër ga dama am ay itte walla lu mel noonu te fekk na la ko waral mooy waxtaan wu doy waar woowa nga xam ne moo tàmbali di jib ca jotaay bi te loolu lu am solo la te loolu ñun magi ahlulaay yiñ jot a dundal nemmeeku won nañ ci ñoom loolu ëlbati sujet boo xam ne amul solo walla baaxul lu yàq la walla ne ñokket dem ci njëkk joxe benn ngànt bàyyi foofa dem te ndaxam xam loolu alxuraan la wa iza raayta allazina yaxuuduuna fi ayatina fa arid anhum xatta yaxuudu fi xadisin gayri wa imma yunsiyannaka alcheytaanu fala taqud baada zigra ma alqawmi alzalimin ñoom dañ meloon ni ñu ñu ñu ñu mokkal alxuraan ñu ko dégg ñu ko xam ndax jëfe gi ñu doon jëfe santaane Seydina Limaamu moo tax fu leen waay fekk jiiteloo leen julli jàngaloo leen ñaanloo leen parce que jëfe gi ñu jëfe moo tax ñu mel ni ay ulama moo tax jëfe am solo ñoom dañ doon jëfe aaya bii ma wax léegi te aaya bi mooy lan boo fekkee ay nit yoo xam ne ñu ngi doyadil kàddug yàlla boo fekkee ay nit yoo xam ne ñu ngi wax loo xam ne lu sofaanook li yàlla bëgg boo fekkee ay nit yoo xam ne ñu ngi wax loo xam ne ak tooñ la du mooylu leen du mooylu leen mooy bu ca wax bu ca sànni sa kàdd mu ne nag yàlla teg sa nag ne wa imma yunsiyannaka sheytaan fala taqud ba'da zikra ma'al qawmi zalimin mu ne ndigal lii ma la digal yow jullit bi ma nangul tey jëfe sama ndigal ne la boo fekketee ay nit yuy doye dil kàddug yàlla nga dum lu leen bu ca bokk bu la seytaane jàppee ba nga fàtte ndigal loolu ba dox ba yamati ci ay tooñkat ñoo xam ne seen wax yëpp tooñ la seen wax yëpp jëwaate seen wax yëpp yàq der la seen wax yëpp vilipande nit la nee na falaa taqut ba'da zikra boo ko fàttali ko ca saasa rek nee na neel neel ñokket ndax lan bul toog ak tooñkat yi ma wax ne mag yi ahlullaay yi nu fi jot a fekk dañ daan jëfe loolu te am na ca ñoom ñoo xam ne mokkaluñu alxuraan xamuñu li waaye jëfe santaane sëy naa Seydina Limaamu moo leen may xam-xam boobu ma wax ne nag mbokki jullit yi gis nga toog ak ay tooñkat am na ci form yu bari ci suñu jamono ji nañ ci bàyyi xel xam ngeen li may wax bu baax nit mën na toog cib néegam wala toog confortablement ci saalam wala tëdd sax ci lalam te mu nga toog ak ay tooñkat xam ngeen li may wax këf kaa ngi nii nga yor sa loxo këf kaa ngi nga téye ci sa loxo bu la neexee dugg ak moom sa néeg bu la neexee toog ak moom sa saal bu la neexee dugg ak moom sa oto bu la neexee nekk ak moom si mbedd mi te fekk na yenn saa yi yaa ngi saggan wala seytaane mën na la fàtteloo na la comme ni ko aaya bi waxee ba yaa ngi toog ak ay tooñkat fala taqud ba'da zikra ma'al qawmi salimin boo fàttalikoo tee ginnaaw bala seytaane nootee ba nga rëccale juum toog ak ay tooñkat nee na ngal la waay jël ñokket ca saas ñokket booba nag am na beneen anam buñ koy defee ci forme toog ak tooñkat yi am si jamono bi forme toog ak tooñkat yi am suñu jamono bi kenn ku nekk xam nga na nga cay génne parce que jotaay ba yaa ci dugal sa bopp ca sa néeg wala ca sa saal wala sa oto wala ci mbedd mi wala footoo yaa sa dugal sa bopp il suffit nga arrêté ko rek génn nga ci te nag loolu nag arrêté ko rek génn si pour delluwaat si du ndigalal yan yamul foofu yàlla dana bul toogateeg tooñkat kon mbokki jullit yi nu yam foofu ci jaari xatu lisaan boobu mooy cërëb làmmeñ boobu muy cër bu am solo te am na ñu ko yàlla baaxe woon xëy nattoo leen xañ leen gis ngeen AVC yeeg mara d'Italie yooyu yëpp nit doon wax wala def choc ba xëy waxatul kon nag cër bu tedd bu mel noonu bu la ko yàlla mayee lam la ca digal defal loola lam la ci tere bàyyi loo ndax bokk na ci li gën a ñaaw ci diggante jaam ak yàlla ngay jëfandikoo xéewalam ci lu neexul yàlla ma te am na beneen phénomène bu doy waar boo xam ne ñu ngi ko commencé banaliser te surtout ñun waa axlulaay loolu loolu waru la banaal si mooy saaga gis nga saaga bañ saaga bokk na ci ñun li ñu gisoon mag magi axlulaay yi bokkante ka ci ay jikko li ñu doon wuute ci yenn jikko yëpp ñoom ñëpp dañ àndoon bañ saaga ñoom ñëpp dañ àndoon jéppi ab saagakat ñoom ñëpp dañ àndoon di beddi ab saagakat du ñu séq ak moom wax du ñu séq moom jëf lu dul nuyoo parce que ñoom duñ tongoo mais ginnaaw tongoo ginnaaw nuyoo duñ séq ak ab saagakat dara gis nga ci péey bii tedd bii ñu dëkk nii muy yoofi mu am ji ak ci mbooleem këri ahlullaay yi fuñ mën a ne aw saaga bu musaan a jib dangay ngay defe ne musiba naarulaay moo wàcc dangay gis ñëpp dangay ngay déggandoo ñëpp naan tuub tuub waaw kokkan la kokkan la loolu waru la banaal si ñun li nga xam ne saa bu jibaan rek ñépp day mel ni dañ leen alertandoo te tuub mooy baatu jàjj la tuub tuub tuub wax ko la te buñ ko toppoo ab xale la bu fréquenté ñeneen wala xale bu fa bokkul wala mag mu doyati saaga dafa vulgaire ak koo mën a saaga parce que amul kenn ku mérité saaga amul benn doomu aadama waxuma jullit de bu mérité saaga amul ba tax na ñoom bu ñu musaana mer ba bëgg a wax saaga xam nga lu ñuy wax doomi àjjana ji walla uy doomu àjjana ji xam nga doomu àjjana ji ak gàtt nga la ñaan ña nga xam ne doomu àjjana ji lañuy saagaa waaye dama ne ñooñu ñooñu ñoo sell ñooñu ñoo yiw mais ñooñu ñooy taalu bay Seydina Limaamu ñooñu ñooñu meññ walla boog ñooñu ñooñu jottali ci ñi nga xam ne dañ fekk wuy si ñooñu ñooñu jottali mission risaala bu tedd bi ñun fekkuñu Seydina Limaamu si kaw suuf ñooña bañoon saaga jéppi kuy saaga buñ naree saaga ne la doomu àjjana ji ma wax ne ñooñu ñooñu meññ wala boog ñooñu ñooñu xàllal yoon wii tey ji nañ roy ci ñoom ngal la saaga bu mu banaal ci ñun waa ahlulaay saa bu jibaan rekk ñëpp ay ñëpp ay ñëpp bu ko defee nag kon ñu yem foofu ci cërub làmmiñ boobu noonu mbokki jullit yi ñu dugg ci cërub bët bi cërub bët boobu itam mbokki jullit yi la nga xam ne moom la ca Seydina Limaam wax moom it dafa indi rek fàttali ñu wax yàlla mu mu mu junja ñaari aaya yi mu indi lenn ci aaya bi nga xam ne mooy aaya 30 ci suratu nuur qul lil muminina qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa